wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñëwaat nan ak yéen ci seen waajtaayu màggal maa ngi woon ca chauffeur sa ak client yi daw ndànk dal ndànk yow mi nga xam ne tamit yaay client wala yéen ñi nga xam ne yéen ne ci biir oto bi ngeen xam fa ngeen jëm ak lan moo leen fa yóbbu xiiroo bi ak ŋaayoo bi ci biir oto bi lan moo ko waral waroo toog fii maa war toog fii maa jàpp place diw ngeen nekk fay xuloo am na ci ñoo xam ne lañ nekk seen kër rek loolu dañuy feeñal ci biir oto yi waaye dee leen bàyyi xel toujours ci li nga xam ne moo leen yëkkati ak fa ngeen jëm ak la ngeen fa nar a jëme ji maanaam la nga fa nar am ci ñu bari seen yool dafay wàññeeku ndax bëgg a toog ci place bañ kenn laal mel ni ku nekk sa amul fenn waaye tamit fàtte ñi ak ay wax am na ñoo xam ne mu xasee dugg oto dañuy coow dañuy coow mel ni ay siko te loolu àq la am na ku den la yow koo xam ne xañ na bëgg na nelaw mënul nelaw ndax sonn na am na koo xam ne ni mi ngi xiif amul sax lu mu lekk am na ci koo xam na ni moom mu ngay xalaat ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow na nga nekk ci biir oto bi fatt nit ni yuuxu yi coow li sóoraale woo soog boo xam ne sax xañ na mën na laa dab kenn ñaanu ko yàlla yàlla na nañu ci yàlla musal waaye di jiima tudd yàlla di jiima wax bu baax ba sax xañ na bu la dee bettee bett la ci anam ba nga xam ne moom moo gën loolu tamit dafa jar di xalaat ndax nit nag dee na nu ne waaye nekk ci oto ne dangay màggali xuloo kii xeex ak kee kii emprunté bi ba kere nga àgg Tuuba yoon yi nag am na ñoo xam ne ni ñu bëre bëri tooñ lañ ci nekk waaw maa ngi fàttaliku bu nekkee xale rek waaw bu la nit romb nga ne xool paa bee nangam nangam waaye yow nangam te nee nga da màggali. yow koy jëruwoon ngay dem mën nga toog nga nek rek ndax ay bakkan ngay jëli kon yow te ki nga xam mo moo magal màggal gi bëggee ko non xam nga yoo sew sewaan yu tamit dañ ci war di bàyyi xel waaw yoni waxna la ko man xey waxat mbuusu ndox yoy ngay naan ay nit la koy jox yow bo amé lu mat njëgu mbuusu ay mbuusu ndox jëndal nga taara ci auto bi boisson salika café ka loo lo a jënd jëndal su fekkente ne ñi nga xam ñoko ñoo koy joxe joxe wuñu ko àddiya ndax am yenn saa yi nag nga dem ba toll foo xam ne ni da ngay sentir na oto bi ni ñi xiif nañ wala mar nañ te gis nga ndox muy jaay nga jël ci la yàlla wërsëgale jënd ko dugal ko ci biir tasaare ko ci biir xool xéewal googu xool xool xool tuyaa ba jooju commencé am kenn xamul nu mu waaye am na ñoo xam ne ni dañuy buñ yoroon un million yàlla mayu leen xolu génn ci dërëm dimbali doomu aadama yi toog lañ toog te nag lii jot li ma kaas bee wala kii kii ma ngay séddale ndox jox ma ca wala waa xool mburu ma wala sandis ba wala leneen leneen noonu la ñuy def di ko jàppoo ba àgg Tuubaa naa yii yoon wi kay moom neex na gars yi dañ lay bernde di la bernde ba kër ngay egg si yow yow kan nga bernde yow yow dañ laa bernde yow kan nga bernde am na ñoom mën ñoo seen alal jooj seen poos bi ba dem Tuubaa bu dikkaat benn dërëm du jóge ci ñoom dem ci seen bokkam jullit dedet leneen luñ ci dolli kay lañu ñuy wut bu ñibbisee na commencé ñet li magal kay dootu fi am bernde fi tan kan nga bernde ki la bernde bu defal ni yow du la bernde su ko defé yoy tamit dafa mat di baye xel kon ba tay ma nga yow rek ci sa tay magal mam Lamp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa ablana taysir wal falaah fi kilta daarayni wal najaa bijaahi sal yomi wa jaa'iman muni يا